Fall jëli tëli jëli tëli tëli daal xafoor jaar déle dem doole génn Gossas def tëli mu dem waa Bawol def assainissement bu doy dëkk bi defar ndox mi santé bi mu defar ko ak sécurité bi loolu mooy li nga xamante ni moom Touba soxla ku xam na ne pendant Macky Sall juróom-ñaari at musa def dara Touba indi gërëwul dara loolu moo war a xol yi murid yi ak jullit yi ak taalibe yi département Mbacké wan ko ni ko suur yow le 24 février man dinaa jox Idrissa Ndab la 95 pour cent incha allah au niveau département bi. pare na pare na pare na Idrissa bari na pare na pare na Macky jeex na ndax jàpp naa ni am réew kenn du ko dénk ab sàcc ak ab saay-saay ndax Macky Sall sàcc la saay-saay la saay-saay la sama